Tafatine nga dem di préparer Italie wala lan la. waaw combat bi ma jar parce que euh, combat dafa ma jaral. Mhm. donc euh, li ma indi fii day jaral parce que dafa am ñoo xam dañuy yaakaar mhm. euh, bi ma jël am lu ma jaral moom su ma ko teg. Mhm. donc may wax tey sénégalais yi ak sama fan yi nga xam ne tey lépp lu ma daj tey ak déplacement bu ma def rek c'est juste pour béykat leen pour liggéey pour suñu combat mën a nekk top à 100 pour cent. pour mën a am ndam bi si kaw si kaw daal. dafa wax nii dóor yi mu dóor Elton lu ko raw la lay dóor est-ce que loolu moo la tiital ba nga dem Italie wala. mais yàgg naa préparé combat bi génn euh, li mu wax mais daal man damay xalaat ni euh, ma bëgg a xeex si làmb dëgg dëgg xeexaguma ko tax xam naa ni wala yaakaar naa ni si combat bi laa ko war ci làmb ji yëpp boo ko sa diggante ak Tapha Tine nga koy wane. xeexaguma ko xeex si benn xeexaguma ko si benn li mu wax nii si combat bi bu dee dëggal na ko si bis làmb bis boobu laa ko war a xeex xalaat naa ñu xeex di minutes yoo xam ne amaatee dinañ kontaan ba ku dagante biir dina nga taxaw yaa Tapha Tine xeex ak moom 10 minutes ndax Bombardier loolu ñeme nga ko <laughs> lamit loolu loolu mooy ci am na ndox rek ndax Bombardier ñi ma nga nàngam loolu mooy ci am waaw loolu mooy ci am na ndox ndax ñi nga nàngam man kay lu may rus laa mais amul ah. waaw nga lu ngay rus nga am mais amuloo looy ragal. waaw lu may rus rek laa am mais xaw la dara lu may ragal. mais ñëpp dañu ne tafaatin mbusum xale bu ñu sol yàpp mag la. waaw loolu si combat bi koy xam. loolu. Hmm. si combat bi ma koy xam def naa ay jéego ñëw na ba ay bi ñëw mais nga xam ne moom wax morso bu mën a mag a am na soxla. am na morceau bu mag a mag a mag boo xam ni client boo xam ni xamul ban jaaraat la koy wàcc. est-ce que yow tamit amoo soxla. non non man de ma ma problème te li ma lay wax nañ ci bi ci combat xam. ba ba Maria est-ce que yëkki bu ma ba ci samay supporters dinañ xam ne kii demoon na te nangam ak foofu muy liggéey. Bombardier gëj nga savourer victoire ca xale bi dëkk Pikine muy Cech. ah. man de gëj nga savourer victoire gëj nga am victoire ci Cech. waaw man euh, nee naa la mosuma tegle deux défaites. mosoo tegle deux défaites. déedéet parce dafa am nga xam ni bu ñu daanoo dafay rëy. Mhm. mais man durant sama carrière yëpp mosuma tegle deux défaites damay am défaite amaat victoire. waaw mais Bombardier ma daanee ceeb yi kii moo ma dëgg la mais Bombardier. Ah. waaw noo gisee TFM rawatina émission bi. waaw mooy ni ma koy waxee rek euh, lamb yëpp benn famille la. dëgg la. te bay wax naa la ko mooy rajo bi bi nga jógee. dëgg la yëpp benn la. dëgg la benn la. defe naa benn waa gis naa la tey sax sax yaa ngi invité garçon yaa ngi interviewé garçon. dëgg la. waaw nga xam ne tey benn famille la ku si wax rek wax su lu rafet parce que. tamit ba mooy tax. benn bopp la kenn waru koo xar ñaar. yow yow yow waaye yow da ngay sama xarit boo nekkee wolf. dëgg la maa nga fa. si boo ñëwee TFM aussi maa nga fa. dëgg la parce vraiment da ngay dugal làmb. dëgg la. mais bo mais naa benn affaire bi nga xam na gars yi ma nekk fii tey Italie ñoom El Hadj Thiandoum Mansour Laye Mamadou. ñu ne la leen vraiment dafay tàngal émission trop ma ne ko woon moo baax promotion bi. dëgg la parce que man am naa si lu mu wóor ni combat yu bari wàll fa la ko taxawalee te xam naa yu bari TFM la koy taxawalee. bu soobee yàlla fii lay taxawee incha allah mais Bombardier. incha allah mais Bombardier. Euh, waaw équipe équipe bu équipe bu TFM war nañ laa fekk Italie. waaw waaw loolu bëgg naa ko trop parce que bëgg naa la leen ma muy waa Italie Espagne Canada fépp. nga ko nga tegal ko ci boppéri Sénégal ñu xam ne ci dafa dem pour liggéey. incha allah dinañ ci waxtaan ak kilifa yi bu soobee yàlla dinañ la fa fekk. incha allah amul benn gërëm naa la nuyul ma waa Italie yëpp. waaw kontaan naa dinañ ko dégg jërëjëf kon mbokk yi gis ngeen wax naa leen ci début bi ne leen. dinaa invité ba invité koo xam ne nekkul fii ci biir réew mi muy bombardier mi nga xam ni ma nga fële ci bitim réew di fa préparé combat am diggante ak ki nga xam ne moom mooy tafaatin mu nekk loo xamante ne nii euh, beneen affaire lay doon wuli sa combat ak la sandeer keroog wuli combat bu metti mu ngi noonu. waaw metti na xam nga dañu ko préparé dañu ko war a préparé rek. ànd ak suñuy entraîneur suñuy xam nga suñu staff. Mhm. préparé ko durement mu metti trop. Mhm. suñu grand yi jàpp ci. préparé nañ ko daal nañ a préparé mais xam naa li la yàlla dooloon daal hmm. bëggoon naa mu gën a mu gën dàq nii daal mais xam nga hmm. ndam daal lu tuuti est xam nga ne xale bi entraîné na man su ma doon arbitre yéen ñaar ñëpp laay yëkkatindoo seen loxo parce que li nga def ci làmb ji moom def wul bëri na hmm. mais nag boo gisee lamb ji yëpp bu song amee man maa ko def bu attaque amee man maa attaque moom dañu ko ne wuli day day ñëw moom mu tee boppam rek waaw boo seetaanee combat bi lépp li ci war lépp man maa ko def moo tax xam naa yàlla yàlla defe ko noonu daal mais mais doon naa ko daana jël bu rëy mais xam nga ren loolu la yàlla dogal daal damay sant yàlla bu baax mais mhm. doon na dàq nii daal mhm. mais li koy am raw waaye kontaan rek nga seetaanaatee làmb ci billaay walaay damaa kontaan Lamine damaa kontaan bu baax waaw billaahi damaa kontaan bu baax mhm. waaw ci lamb jeeg ak invitation bi xam nga mhm. yow na maa rêvé lii nag mais xam nga teel yàgg nga rêvé toog ak man toog ak Lamine Samba ko yàlla dogal ndeysaan waaw di sant Cheikh Anta bu baax moom mi jàpp ci affaire boo xam nga mhm. ba li lépp am daal di sant bu baax léegi foo jëm comme sa combat yaag la sa der metti na metti bi est di nga ragal ni euh, doo ragal ni euh, mbër yi bañ a jël sa avance non gars yi nañ bëri man parce que gars moom ko ci bëgg a dem moom foog nga lu Uh-huh. billaay parce que lasta lasta moo a moo ma jiit ci lam uh-huh. man ba muy bëre boobu maa ngi dëkk bay sàmm uh-huh. waaw ci dëkk fii laa lasta dama koy sant di ko gërëm parce que bu ko neexoon du bëre man parce que dama may sens dama koy sant di ko gërëm lan moo tax nga tuddee sa bopp wulli de wulli de sama papa bu ndaw di sama nijaay ñu bokk ah benn dëkk Réfane waaw et ma koy supporté doon bëri ci mbappat yi ay fu ne di bëri mbappat fu ne Fass Garga doom mi doon bëri tey jii maa moom bëri mbappat Fass final. Ah waaw bëri nañu maa mbappat Fass bëri naa mu. ma ko sens parce que del maa jig du ma ko mm-hmm. mais. mais doo ko sensé waaw yàlla may suturaal saa defee ci ndam yu kawee sama njort. Mm-hmm. waaw man nag ko sensé parce que tur bëriwut man maay bëree. man laaj la lan moo la dugal ci ci làmb. ci làmb mm. ci làmb daal ci làmb daal li ma dugal dama doon doon dama doon def commerce man dama doon jaay. ah commerçant nga woon. marchand ambulant waaw marchand ambulant Ponty. Hmm. waaw di sant waa Ponty gépp Sandaga. Hmm. dañu may jàppale bu baax di ma ñaax waaw di leen sant bu baax. waaw ak Xaali mi xam te ni mamul combat moom mooy res ceeb bi foofu Xaali hmm. moom omo fee moom ak Rama hmm. Mbaye ñëpp waaw hmm. an sant di leen ngërëm waaw ambulant nga woon après lan nga def ba dugg ci làmb man sama grand ital la nekk waaw moom foofu la nekk xam naa ko mooy Mbaye Diouf waaw waaw sama grand Aliou Aliou Aliou Aliou Aliou Diouf Aliou waaw sama grand ñoo ko ndey ak Baye la nekk man nag dama nekkoon ci yoon yoonu échec ko am bëgg na dem. Hmm. affaire yi échec. moom mu da nga jaaroon ci gaal yi. non non ci avion laa bëgg na dem far affaire yi ko hmm. waaw léegi nag may entraîné sa waaye mujj na ma nag garaaw ndeg affaire yi lijjanti nga ko lijjanti mu mu échec. Hmm. léegi am problème fekk boobu maay bëri mbapat ay terrain rouge fii. maay bëri foofu mbapat di bëri lu bëri. waaw di jëli drapeau di jël ku ma jox ma daan ko ku ma jox ma daan ko sama néeg boo fa ñëwee lépp drapeau la uh-huh. waaw di sama waa néeg gépp sama uh-huh. waaw di leen sant bu baax uh-huh. waaw léegi seen affaire yi mu ëpp may loxo léegi bu ñu mën a am problème léegi daal continuer lam demal demal bu jeex léegi lu yàlla def ñu loolu la bu neexee nga dem bu doon sa ñaata combat moo doon sama sixième combat ma sixième combat waaw ñaata victoire waaw six victoire rek yàlla mën na ma ah yow kon amagoo defet ci làmb la waaw yow fi mu toll ni kan la sa xel dem quoi sama xel daal damay déglu sama staff ñoom Bada Jonin waaw Bada Jonin booy yow tamit looy déglu sa staff yow du yow yow yaa xam nga ñoo tollal catégorie kañ waaw xam naa loolu mais xam nga instant yi xam nga rek bu ma fi nee di laaj kenn di ko parce que fii laa ñëw di laa ñëw naa ko fii laay bëre booy bi nanati euh, bu laal hmm. mun na ci signature ba wax lu ne coob ci wetam comme ni di saaga naawaa saaga affaire yooyu xam nga hmm. may dem stade Iba Mar Diop bu war di bëre bul laal mun naa bu laal tax ma mu sonal ma daal ci ci combat bi fu ma aw mu lëjal ma waaw léegi nag daan daan daan naa bul laal. Hmm. waaw mu ne du bëri ak man lu tax. Hmm. daa war a bëri man voilà waaw dama wax gars yi ne leen dinaa invité ñi nekk ci biir réew mi dinaa invité ñi nekk ci bitim réew waaye xel day fàtt loolu la ñu waroon a ubbee ndax kenn ku ci nekk ci ñun làmb njaboot lañu dañu ne njabootu làmb lu dal kenn day dal ñëpp dañu koy tàmbalee ci Mouhamed Ndiaye bu RDV baayam dafa génn àdduna mooy def xam sa yal na yàlla xare àjjana baayam boobu woyofal suuf ci kawam euh, jéggal ko ay bàkkaaram moom ak néew yam fa fekk ak ya ko fa fekk yépp kon Mouhamed Ndiaye euh, ci turu TFM yépp ñu ngi lay jaalee sa baay boobu waaye dafa am beneen naqar woo xam ni dafa dal ci njabootu làmb muy yàndaa bu parcelle mbooloo waa juróom wu jigéen dafa génn àdduna muy yaayam yàndaa démb la yaay ji génn àdduna ñu ngi koy jaale bu baax a baax njabootu làmb di ko jaale askan wi yépp ndax ñun ñépp benn lañu ku ci am naqar sa moroom am na naqar ku ci am bànneex sa moroom am na bànneex kon yanda jaale baa ngi noonu mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi kooki nag patron yanda la Timbar Mas maa ngi lay nuyu